tey jii maa ngi soog a si nii ci suba si nii fii ci Kaolack gouverneur région teeru ma ànd ak préfet mais surtout ànd ak madame le maire mi nga xam ni mooy ministre de la fonction publique fii ci Kaolack euh, ma ñëw fii ci turu président de la République parce que ñëpp xam nañ ni maanaam tiis dafi am marché bu gën a rëy ci Kaolack moom am tiis lakk indi ay dégâts matériels yu rëy yu bëri sax. donc bu demee nii président dafa am benn outil boo xam ne ñu tuddee que la solidarité nationale bokk ci euh, au niveau donc du ministère du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale pour lépp loo xam ni maanaam bu demee nii la maanaam incendie wala maanaam inondation maanaam daal euh, tiis yu demee nii am indi ay dégâts matériels état bi am ci ndimbal bu mu ci war a mën indi fekk nag ni maire lancé woon na un appel mu am solidarité citoyenne ay doomu Kaolack yu bëri ñëw dugal ci seen loxo mairie bu dugal ci seen loxo mu nekk loo actif loo xam ni dañ koy rafetlu bu baax a baax président jóg parce que euh, dafa noonu la mën demee mënuñoo fat faj mënuñoo saafaraal waaye mën naa dëfal ci dëfal boobu nag mu jox ma enveloppe euh, maanaam juróom fukk million maanaam cinquante million ma jël teg ci loxo gouverneur pour mu jagleel ko askan mi nga xam ni moom la lii lu metti lii tal donc moom bu neexee yàlla gouverneur dana xam nan nañ koy séddalee ak les différents acteurs police def na enquête am def nañu recensement am xam nañu à peu près les victimes ñaata lañu donc loolu bu neexee yàlla xam naa gouverneur dana ko def waaye mbirum marché dafa nekk mbirum boo xam ni il faut mu am nuñ ko xoolatee parce que marché yi euh, surtout dans les grandes villes marché yi gis nañu ni dafa maanaam dafa xaw xat léegi parce que maanaam askan bu ciy liggéey dafa yokk construction yi construction yi yàgg la am na yoo xam ne avant indépendance la ci loolu nag état bi daf ci jël matuwaay bu mat sëkk pour génne benn programme boo xam ne ñu ko tuddee programme de modernisation des marché mu jox ko budget lu soixante dix milliards de francs CFA pour ñu tabaxaat marché yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk yi. maa ngi gërëm euh, le ministre Mansour fay ci ñëwam bi nga xam ne ñëw na ko fi tey indi ndimbal lu am solo. ndimbal loolu nag ñu ngi ko ciy gërëm di ko wax ne ko dañuy yóbbanteel aussi ngërëm ci président de la république son excellence Macky Sall euh, ngërëm gi nag ci sama tur la waaye ci turu bureau municipal la ci turu conseil municipal ci turu commerçant yi nga xam ne tey ñoom ñëpp ñoo am métit ci turu population Kaolack ndax ku metti am am na xar nit ñëw dimbale la kala dimbale kooko bëgg na la te kooko yéene na la jàmm kon li ngeen wax yëpp ci affaire yu jaaxle bi ni ñu war a reprendre seen liggéey yëpp loola waral ndimbal bi ñuy gërëm aussi bonne volonté yi nga xam ne yëpp bi ñu lancé appel bi ñëw nañu jàpp ci.